ay mois yu bari avant mbir bi lépp di jaar yoon biir Yewwi Askan Wi nit ñëpp di àndandoo est-ce que bu doon moment boobu la loi bi taxawaay bi ngeen ci am nii di ngeen ko ci am parce que teel nañoo dégg ngeen di soupçonné benn dil xëy na tudd leen benn tur ak yooyu mais di wax que ni lépp dina leer Khalifa Sall sax ne woon na en tout cas nit ñi dinañ gis léegi nag lii nga xam ne moo jot a am euh, gis nañ taxawaay bi ngeen ci am est-ce que bu doon yéen ngi ànd ak waa Pastef pour leen directement di ngeen ci am bii taxawaay wala ça la même chose non xam nga kon seen rapport c'est toujours huilé. Ouais. non euh, léegi euh, d' abord il faut nga retourner aux origines. Mhm. lan moo yàq rapport yi dañu àndoon créer coalition. waaw tuddee ko Yewwi Askan Wi je le dis je le répète Yewwi Askan Wi à l'origine Pastef la woon taxawu Sénégal pur PDS bàyyi muy les trois entités. Mhm. taxawal taxawal taxawal ko ànd ànd bu rafet dem local dem législative. ñu teg ci ne bu ñu eggee ca présidentiel ba ku nekk. demal sa dem utal sa bopp. ci la ñu bëri ñëwee bokk ci si yow askan bi dugg si bu ñu dugg see aussi nag ñoom mu arrangé leen coalition bi ku nekk gis sa bopp loolu mooy dëgg. bi ñu demee boo dem dialogue national taxawu Sénégal souverainement décidé day dem dialogue national pour poser les problèmes waaye yow ne non loolu du am loolu mooy problème bi. intolérance ba tax ñu dàq Khalifa Sall ci askan bi te mu nekk membre fondateur ñi ko dàq mooy ñu fekk si mu ne man damay dem dialogue assumé ko plein jour dem poser les vrais problèmes d'opposition la mu yëpp ñëpp xam nañ ko gis nañ ko ñu voté loi bi mu bokk ci élection bi am na ci droit mm-hmm. acteur politique la 2019 Issa mm-hmm. biñ koy xañ mu nekk candidat je l'ai dit chaque fois je le parce que boo tax man ba léegi quand on parle du conseil parce que 2019 Khalifa était encore électeur éligible il restait le rabatari. rabatari. waaw ah, si c'est suspension. non yi dëgg seen tànk. moo indi woon coow bi ne Khalifa du bokk. bokkul. waaw mu naxadi si luñu lool amoon mu amat lii rek donc kooku bu nga xañee droit am ne ko doo bokk te mu war a bokk. ñu woote waxtaan pour xool ni mu bokkee day dem bokk. donc le fait d'aller au dialogue nous a coûté très cher dans l'opposition. ay attaques ay théâtre ngeen. mais kuñ trahir. léegi chapeau bi ngeen bëgg a jël ko ñeneen non non maa ngi ñëw. Hmm. kan lañ trahir ñun pour ñu jógee dem ci dialogue bi kan lañ trahir am nañ ci droit dem def ci dialogue bi parce que ñun d'accord ñu pensée unique lu kii wax ñu ànd ci lu kenn wax ñu ànd ci non. coalition ngeen nekkoon tamit. coalition bi amul la coalition n'a jamais dit bu kenn am dialogue. man dama bokk si ñi bind texte coalition bi dama bokk si ñu ko bind les premiers textes de la coalition xam naa baax li ñu ci wax on a jamais dit que yooyu mooy décidé la preuve quand on a parlé du dialogue. Mhm. xam nga kan ma ci génn ne ne demul dialogue Malick Gakou. waay dañ ca tegu ci. gars yi di génn ku ne di baax ndaw ma dialogue bu doon yooyu mooy décidé yooyu mooy mooy def réunion. mooy def communiqué ko. d' accord nañ ci loolu. Mhm. ñu dem ñu dialogue assumé ko ñu tax ñu traître ndax dialogue. mu topp ñu nag loolu bu ñëwee tey ba xëy danañu génnee ñi nga xam ne dañ leen ñii c'est des criminels ñii c'est des terroristes c'est des rebelles ñu xëy bàyyi ñëpp ci la Khalifa demee lii c'est suspect. Ah. am na lu ko wundu. comment ça c'est suspect non mooy li ñu wax nii rek interrogation la yaa def yaa tooñ yaa rey yaa yàq ñu ne léegi dañu la bàyyi nga ñibbi mais ça ça pose problème loolu ñëpp dañ ci woon a interroger wu. xam nga la mhm. gëm. quand on est dans la scène politique. interrogez-vous à l'endroit de qui. non à l'endroit de leurs accusateurs ñu leen accusé woon ndax ku accusé ñëwaat wàccee leen ñooñu kay la ñu war a poser cette question. waaw non mais ñooñu aussi lan moo tax ñu def ko si wax la gis nga. yéen lu ngeen ci xam yéen ñun lu ñu xam. ne non man li ma ci xam xëy na bëriwul man damay demee logique. Mhm. logique mooy mën a jàpp ay nit toroxal leen tëj leen jiñ leen li leen jiñ loo xamante ne c'est peine bi gën tuuti vingt ans de prison la. ñii péppati la ñoo tëj nga ne tey dem leen ngeen ñibbi bàyyi nañ leen ngeen dem. ëpp ñu ne loi d'amnistie. ñu am loi d'amnistie pour revenir un peu à la logique de Yewwi Askan Wi. xam nga tey bu fekkente ne dafa am ñuy waxtaan ak président Macky Sall pour man loolu du lu du lu ñu war nëbb parce que en démocratie bu ñu taxawee yow nga dem prison wala ñu jàppale xëy na sa ay droit. Mm-hmm. mais bu ñu négocié wul duñ ci génn. la négociation est un pilier essentiel de la démocratie boo négocié wul da nga dem ci impasse la preuve c'est que loolu en train de faire là. Hmm. conseil constitutionnel Macky Sall mais c'est des formes de négociation pour trouver une bonne date. négociation entre qui et qui. non xam nga sànq dañu am na lu ko wundu mhm. ñu attaqué ñu ne way Sonko bu dee négocier ak Macky Sall dañ koy nëbb nangam nangam dugg na fi génn fi man ma jàpp ne kiy négocier defal lu bon.

technique de négociation. Mm-hmm. jàng naa loolu. négociation c'est direct ou indirect nest mais le plus souvent c'est voulu c'est pas imposé Khalifa Sall bu nekkee président les gens venaient le voir directement pour négocier ak moom les gens passaient par nous ñu ko gën a jege pour négocier ak moom tu comprends mm-hmm. les gens w ñëw seeti ko wax ak moom mu tontu leen. les gens passaient par nous wax ak ñun wax nañ xalifa lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii et xalifa ce qu'il disait ce qui est non négociable mooy sama candidature en 2019 ce qui est non négociable c'est la remise en cause de ma dignité d'homme loolu dama ko négocier mais teewul nit ñi dañuy ñëw di yónnee am na ñoo xamante ne c'est la bonne volonté bi ngeen amee coow lu fii seen crise bi amoon fii bi Cheikh Niass naan day dem seeti euh, Macky Sall amuñu jóg dox ko. diggante bi bien sûr waaw attends moom Cheikh moo leen yónni. mais waa taxaw Dakar quel est le problème ak waa Pastef a xam maa ngi wax léegi. d'accord Cheikh xam nga a leen. mais am na ay bonne volonté yu jóg. bu rafet dégg wax bi. Mhm. dem élection wax ko ba ñuy dem élection ñu nag ñoom ci locales yi ak législatives yi taxaw ay fait preuve de beaucoup de générosité et d'ouverture et de tolérance. tout comme Pastef non dama lay expliquer rek. c'est hmm. un seul exemple. fépp foo xam ne am nañ fa liste d'accord fu mooy jiitu amul coow fépp foo xamante ne d'accord nañu taxaw mooy jiitu Pastef indi problème ba fii à Grand Yoff fii à Grand Yoff. li fi xel bi sàll biñ ne Pape Madiop Diop mooy candidat bi Pastef àddina. dem ànd ak Bouba Camara de plus. ñoom maître Ngagne Demba mais taxaw aussi à bénéficier de la popularité de Ousmane Sonko aussi defal ndànk ma ñëw. <laughs> defal ndànk ma ñëw taxaw daf fi nekkoon avant Ousmane Sonko bu ñu def taxawu Dakar yu dem élection da gagné Dakar Pastef amagul. mais entre temps aussi taxawu dafa dafa perte oraam waaw d'accord ku ne am nga loo indi. ku ne am nga loo indi li kenn ma ñaar ko dàq bu doon Pastef kese la duñ am liñ am bu doon taxaw kese la duñ am liñ am mais bu ñu àndee.

on a eu 16 communes sur les 19 alors qu'auparavant on avait 13 2017 la ñu jàpp Khalifa Sall en prison qu'il est devenu député hmm. nekk député maire de la ville de Dakar 2019 moo dem élection demul ak Idrissa Seck néew ma ma loolu man néew ma loolu hmm. ku nekk am nga une plus-value boo am dama koy nangu loolu néew ko de hmm. d'accord ci loolu mais dama ne la bu Sonko indee xalifa indi Déthié Fall indi Guirassy indi Aïda Mbodj indi Gakou indi lañ am li ñu am. Mhm. mais. Euh, da nga wax bi mhm. maintenant le fond du problème mooy que ne taxawu Sénégal a toujours subi les critiques et les actions de passif mais taxaw été resté historique tolérant mu suñu fayu loolu dégg nañ ko bi ñu dem ba ci biir nag suñu ay jeunes suñu ay femmes aussi xam ne lii jëmul kër. ci la ñoom aussi rebelle wu di tontu. rebelle moo indi xeex ba amoon sàmm rek c'est-à-dire xamul tax dañu dem obélisque. waaw yóbbu Khalifa Sall. bu ñuy mobiliser à Dakar. mais ñu waxoon ñooñu nit ñi fa ñëwoon la rek. mënoo ko qualifier benn camp moo ko def non non non non non non on sait tout. mais Moussa ça xam nga man public bi ñëw ñoom mi ma ñëw loolu mën a seppee ñii parce que bokk ak ñee lañu bokk xam nga dafa ndànk Ousmane Sonko lavee bu ne bu leen yuuxu kenn bu leen bedd kenn bu leen yuuxu kenn il a dit la veille ou non. waaw cest incitation on on a on a en ah incitation man ñëw Khalifa Sall bu ñëwee taxaw. bu ñëwee taxaw. Moussa nag sa rapport bu ñëwee taxaw. Abbas Fall jël parole naan suñu mag la bu leen ko yuuxoo lu may lan ñu on est pas de la dynamique du ñu ay xale. ñu yuuxu Khalifa Sall obélisque ñu muñ ko nangu ko Omar Cissé ñu yónni ko mu dem ñu yuuxoo ko ba Deme fii Cheikh Gueye dañ ko yuuxoo bu nit pas là. la presse doit dire ça aussi d'abord pourquoi il y a eu des Cheikh Gueye a pris la ñu yuuxoo ko mais kenn daaxul yuuxu kenn kenn daaxul sànni xeex kenn man du ma xeex du ma xuloo je suis un non violent. Mm-hmm. mais li ma jàpp mooy ñoom li ñuy def mën nañ ko la preuve ba ñu ko defee dañ leen ko def coow li am mu jëm kaw. FDD bi ñu communiqué yi naan identifié FDD mooy ñan yoo xamante ne war nañu mën a tax oo nit ñi bu ñu oo nit ah, dama la expliqué rek si nga fii la vérité mooy bu ñu wootee manifestation c'est les politiques mobilisent c'est les politiques qui mobilisent opposition bu ootee c'est le Pastef c'est Taxawu c'est PUR ñooy constituer l'ossature de la mobilisation quand FDD euh, organise wala F24 organise nous les politiques on répond à leur à la manifestation pour dooleel leen parce que ñu bokk cause bi ñoom ñu àgg boo ko téye ko ba pare ñu ñu yuuxu ñoo xamante ne ñoom bu ñu am duñ am duñ am duñ taxaw. mais chose publique. non am na ñoo xamante ne mu nekk ci politique bi. nekk ci société civile bi bu ñu woote woon ñun wuy jiwuñ duñu mot cent duñu mot cent il faut qu'on respecte les politiques et les grands partis mënoo ñëw ba feef Khalifa Sall HLM Grand Yoff di ko yuuxu mais est-ce que seen seen division yi ak seen querelle de querelle de moom mooy affaiblir l'opposition di dooleel euh, le président Macky Sall parce que déjà yéen entre vous amuñu ginnaaw ñu naan yàlla na seetaan xew loolu déjà bi ñu ngi waxee sax ak expérience tooñ xamuñ ko sax ku dóor. xamul ku tooñ ku fay la xam waaw n'est-ce pas. Mm-hmm. ñun dama ne di muñ di nangu naan dugub bis jaay dugub fii loolu dégg ko. est-ce que nekkul stratégie bu taxawu. mais bi ñu jotee suñu xale yi bi ak suñu jigéen ñi bi ne li lii day dagg dagg na léegi nag xam la moom solo. Mm-hmm. le combat c'est pas en taxawu et passif. mais lay nuru instant yi dama la loolu erreur la. le combat en tout cas ñun taxaw Sénégal. suñu adversaire c'est Benno et son candidat. Issa hmm. s'il te plaît dernière question balaa ngaa ñëw ci moom est-ce que du stratégie de communication parce que.